mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp jotaayu asalaf ma al Qur'an. tey jii ñu ngi fii ci Mbour ak la maison du Coran comme niñ leen ko waxee Alqur'an kese Alqur'an fépp Alqur'an rek. tey la maison du Coran ñëw fii ci Mbour ñu fas yéene fee amal jotaayu asalaf ma al Qur'an ci njiital sunu mbokkum daara a Cheikh Abdel Aziz Camara. baraka rahmaanu fiihi wa fii dawihi ak équipe bi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci la maison du Coran ñu fa yéene wéy fa ñu tolloon daal di ko cay sof sahaaba yi yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam daan dund ak ñoom alquran al karim nee naa leen alquran kese bi alquran rek du tey dañ ko doon ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax téere bi mënuñoo am li nga xam ne moo ko ëpp rawatina fi jamono toll nit ñi dëng nañ fitna yi bari nañ aduna yàqu na ñu soxla li nga xamante ne moom mooy njub mbokk yi nañu xool baada alfatiha awalu jumlatin tiina jumla bi nga xam ne mooy njëkk ñëw ginnaaw fatiha yàlla ne alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin yàlla ne téere bii amul lenn luñ cay sikki sàkk amut lenn lu ca wàññeeku amut lenn lu ca dëng mu nekk hudan njubla ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ragal yàlla buur bi wa taala mbokk yemu ca ba yàlla di tuddu wer wi nga xamne mom mo gën ci wer yi muy weru koor lan la yàlla bur bi subhanahu wa taala wa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ñu ngi tuddu ngeenelu weru koor waye la tax mom mu gën moy lan moy alquran alkarim lan la yàlla bur bi subhanahu wa taala wax wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atluwa alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne saa borom yàlla daf maa digal ma bokk ci jullit ñi kon nit mënoo am daraja bu gën a rëy nga nekk jullit waaye wa an atluwal qur'an yërmaandeg yàlla buur bi subhaanahu wa taala nga xam ne moom la yonente yeeg awliya yi ñëpp di faggu yàlla daal di jël yërmaandeem mu daal di koy acc lan déglu alquran al karim ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sunu dee jàng alquran al déglu len ko ngeen setlu setantal jox ko yeur moy tax yàlla bur bi subhanahu wa taala dal di len yërëm mbok yàlla bur bi subhanahu wa taala yemu ca mu ñu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha wa fi laya afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha من أو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ixtilaafan وقت nañu القرآن الكريم di ko càmbar di ko jàngat ndax wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal yàlla buur bi subhaanahu wa taala ci dëgg la wàccee li nga xam ne moom mooy téeréem ci alquran gi la ñu mën a ngoy ñu mën a tedd texe daal di nañu bàyyee xel ñetti suñu digganteeg alquran yàlla dafa wax ci téere bi subhaanahu wa taala mu ne wa rattilil qur'ana tartila fu ñu toll nañuy jàng alquran al karim di ko jox gëdd di ko jox cëram mbokk mi su fekkee ne mënoo foo toll di jàngal quran al karim faqra'u ma tayassara minhu jàngal la nga xamante ne moom la la sa jot may nga góorgóorlu ci kémti lay kattan su fekkee ne mënoo boobu mooy lan wa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun foo toll del déglu alquran al karim li ñu jublu mooy lan nga bañ a tongu alquran al karim mbokk yi ubay ibnu kaabin radiallahu anhu hada sahabiyu aljalil sahaaba bu màgg bii بن بس يونتي صلى الله عليه وسلم دا فا نيو تي مونكو يا اوباي يا اوباي اوباي نكو نعم يا رسول الله موي يونتي الله محمد عليه الصلاه والسلام يونتي الله محمد ني امرت ان اعرض عليك القران سا بروم يالا داف ما ديغل ما دادي جانغ القران الكريم غا ديغلوما ما دادي لي غارال القران الكريم لا اله الا الله امرت يالا داف ما ديغل ما جانغ القران غا دادي وبينك يا رسول الله وهل ذكرت لك باسمي يا رسول الله وهل ذكرت لك باسمي وبينك يا كي يلا يوني ندخ يلا دفو تدو سما تور من ابي بن كعب يا الله وخنا لين سوي جانغ القران يلا بور بي سبحانه وتعالى يولي خول الله سبحانه وتعالى يرى جميع عباده يلا دفاي غيس اي جامم waaye walaa yanduru ila ilayhim jamia waaye nekkul na ñëpp lay xool ndax yowmal qiyaam am na ñoo wal iyaadu billah yàlla du leen xool sooy jàng alquran allah subhanahu wa taala khaliq samawati wal ard yanduru ilayk yàlla daf lay xool di tuddu sa tour di wo malaika yi ne len diw mu ngi jàng alquran u bayne ko yow ki yàlla yónni wa hal dhukirtu laka bismi ndax yàlla daf ma tuddu dafa tuddu sama tour yonti yàlla muhammad ne ko naam naam bismika wa nasabik يالا def ملا laa tuddal tuddaale sa askan fil mala'il a'la fële ca asamaan kon mbokk yi lan moo مومي ubay loolu تسابقوا إلى هذا القرآن تسابقوا إلى هذا الكتاب اعتكفوا مع هذا الكتاب قارئين تالين متدبرين عاملين بهذا الكتاب نجفي القرآن الكريم نحن بكتي السابقين السابقين موتى كعب الأحبار موخون والسابقون السابقون هم اهل القران نيغا خامني نيوم ني غرا جيغي يالا الك ني جيتو تي الجنه الذين يسكنون جنات الفردوس نيغا خامني نيوم ني ديكي تي الجنه الفردوس نيوم ناي نان ني اهل القران كعب الاحبار موموكو وخون موكي لنن لون لن ووي اي نخيلا نانيو جيل ماغني القران لانو امون andil na len fay émission yo xamantene mo wax len lu bare bare ci mag ñi mam bay ñass lam wax ci alquran mam Serigne Touba lam wax ci alquran mam sayyid alhaj malik lam wax ci alquran sama turando Cheikh Omar Foutiyu lam wax ci alquran Serigne Abbas lam wax ci alquran rahimahumur rahman jamia mag ñi yal yàlla fayal ñu len waye lu len way wowe lenen daf len di nax na li xew ci jamono ji kat yi wootekatu ay yonent wootekatu ay maqama yo xamantene kenn ci ñom amuko ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع وحتي حديثنا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله من بس بين تدو تخومك لدول نيال نتولين دادي فينيال أي نتنو خمنا أي كاتش كاتلانو أي فين كاتلانو لجيجي ترانت كونك دي ووتي ووني أبيان انتلا لا إله إلا الله سنغال دي خمنا ترانتي ليجي نمتلكو xawma fan lay baxé mais du fi te ko ci déglu du wax benn laay mu luddul mu yaqu lélé nga dégg ñuy wax tubab man dégguma tubab lisani la yuhsinu siwa wa gayra al arabiyya waaye ku ci wax arab yàq ku ci ñom ku ci wax al qur'an al karim benn sar fatiha ku ko ci jàng ci ñima dégg de ñi seen mission wara commencé ak ñom ñep ku ci jàng fatiha yàq ko ab yonent di yàq fatiha wala ayyadu billah du baxé yonent yàlla muhammad xamalon na ñu ne yi dina feñ wa kulluhum yazumu annahu rasulullah ku nekk di woote woo di nar di woote woo ne ab di njortu ne ab yonente la yonent yàlla Muhammad nee ne moytu leen leen du dëgg kenn ci ñoom du yonent yonent yàlla Muhammad mooy nabiyu axiri zaman yonent yàlla Muhammad mooy yonent bu mujjug comme ni ko sama sëriñ al imam al qurtubi waxee nee na bokk na ci mandargay mujjug jamono mooy yónni bi yàlla yónni yonent yàlla Muhammad li annahu nabiyu axiri zaman wa laysa baynahu wa bayna yawm al qiyamati nabi diggante yonenti bi ak yawmal qiyamah benn yonenti amu ca ku ko woote woo say mbiri bop la ma kana min sawabin fa min arrahmaani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaani صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ملتي ميديا مولين دي ميسين émission السلف مع القرآن Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et les accessoires ci